asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi seetaan Mbour TV matinal mbégte jàkkaarloo yéen euh, si émission bi saa su nekk ni ñu koy defee ñu namoo leen lool nag tey ñu ñëw euh, ci plateau bi ànd ak ñi nga xamante ni ñoom laay bokk ak émission bi euh, nar a waxtaanee nag li nga xamante ni moom la def chaque jour si Mbour TV du lundi au vendredi tey nag ñu ngi nii toog Sista Aïda Binta waaye nag ñu ànd si ki nga xamante ni moom mooy Mati moom mooy yor rubrique bi bees bi nga xamante moom la tuddee technique jàmmarloo ci euh, jamono ji xarala yu bees yi nga xamante ni moom moo am ci réew mi ak ak ci àdduna warngal këpp naka la koy nit ñi di euh, jëfandikoo kon loolu moom moo nekk teewaayam fii ci plateau bi bu ko defee nag euh, ma daal di jox leen Sister Binta borom Casamance moom mu nekkoon Casamance Binta namoon nen la ñu ngi leen di. maa leen raw lool sa Djib Diop Ndiaye nuyu leen lu bëri bëri nuyu sama Sister adoré Aïda borom bu TV matinal nuyu naa la lu bëri bëri ak kone rek euh, soyez la bienvenue Mbour TV euh, matinal jàmm rek moo fi nekk ak liggéey tamit euh, nuyu suñu caméraman Zal ak téléspectateur Mbour TV di leen ne rek namoon nañ la lool lool lool sa waay xam naa ne yéen a ngi ci jàmm bu baax baax di ñaanal ñëpp jaamu jibi jom Njaay su ko defee rek ñu daal di la delloo kàddu ba ci kanam. waa jibi yow kii yee Binta du moins maanaam jibi xam nga damaa sonal jibi Binta naka Casamance. Casamance neex la def. waaw neex na parce que temps bi feeñ na ci yow. ah nga ne Casamance nga jógee. waa gis dama lay yóbbaale bàyyi la nga nuyoo. waa maa ngi nuyu téléspectateur yi ñu seetaan d'abord di nuyu Jibi Diop Ndiaye di nuyu sama sista Aïda et aussi Binta aussi namoon nañ ko trop yaakaar naa waa dalal bi moom kontaan naa ci tey moom plateau bi macha allah ok téléspectateur internet Mbour TV yi mu leen di nuyu di leen ziar di nuyu kilifa diine kilifa aada fépp fu waay mënti nekk ñu lay fekk fu nga nekk di jox sa wàccuwaay waaye di ñaanal yàlla ñi ci hôpitaux yi yal na yàlla delloo leen seen njaboot ba ñu mën a yal eh, na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu seen njaboot ñi nga xamante ne caabi da leen a féete ginnaaw yal na yàlla delloo leen seen njaboot ba ñu bañ a def leneen lu leen fay dugalaat waaye ñi nga xamante ne nii mooy way làqu yi yal na suñu borom teeru leen ci yërmandeem ñu bañ a rëccu lenn ñu doon def ci àddina eh, di leen wax nag ne nii rek lay demee saa su nekk di lundi au vendredi ngeen di am seen émission Mbour TV matinal eh, di wax nag ki nga xamante ne nii mooy système Mati di ko wax nag ne plateau bi amul ku bees ñëpp ñoo yem boo ñëwee tay rek da ngay daal di adhéré daal di bokk di leen wax nag ne nii rek lay demee ñii daal di feggoog nag ki nga xam ne mooy Djibi Diop Ndiaye ki nga xamante ne naa la mooy boobu <laughs> ah, plateau bi plateau bi dafa war a ala daw dafa war a neex waaye balaa boobu rek xanaa dañuy daal di dem régime seetaan publicité daal di dem siwaat ci seen plateau Mbour matinal mbokki askanu Mbuur mbokki Sénégal mbokki monde entier yéen ñi bëgg lu baax yéen ñi bëgg foo sañ sañsee génn ñu xoolaat leen ñëw leen Kër Binta Fashion chez Kumba Madame Diaw Kër Binta Fashion gérante bi moom mooy ayda ak Ummi kër Binti Fashion mi ngi nekk ci yoonu hôpital bu Grand Mbour bu dee nag yaa ngi jógee hôpital bala ngay jot armère yi bu dee yaa ngi jógee nag marché central jëm hôpital bo rombe armère yi rek deuxième mbedd foofu la kër Binta Fashion ubbi boutique am fii ci Mbour boutique kër Binta Fashion ñëwal fekk fa kooku di Aïda wala Ummi ñoom ñooy gérante yi bu la neexee nga woote ci 77 902 71 25 wala 76 269 54 69 Kër binte Fashion nena day jay, lépp lo xamanteni produit la bu jógee fofu ci Dubaï wala ci États-Unis Ya xam montre de classe nga bëgg ay dal, ay greffage façon bu taille bu ne cheveux naturel façon bu taille bu couleur bu ci nek amna fofu foofu Kër Binta Fashion chez Kumba Maram Diaw yamuñu fofu de nak dañ indil ay diw yu bax, ay diw yo xamanteni am yuy xeesal tamit yuy maintenir sa teint waaw yooyu nag moom mooy fësal taaru jigéen am kër Fashion chez Kumba kër Binta Fashion yamuñ foofu de ay tissus yu baax am na fa ay montre de classe ay dàll ay sac. lépp loo xamante day fësal am na kër Fashion chez Kumba madame Diaw nee na nag Sénégal ci monde entier bo beugé seen produit mën nañ la ko yónnee wala nak nga and ak ñun rek ci suñu whatsapp 77 902 71 25. Kër Binta Fashion bu la nexé tamit nga visiter suñu page Facebook ci internet bi rek nga def nak Binta Fashion kooku nak moom moy Kumba madame Diaw néna dafa bëgg nak yeen waa yeen wa Sénégal dara dootu leen ump ci sanse ci bitim réew yu tendance lay doon yoo xamante ni nouveauté lay doon original lay doon képp ku ci bëgg rek 77 902 71 25 wala 76 269 54 69 nga jokk ak ñun ci whatsapp wala facebook ñu indil la li nga soxla lépp ak Kër Fashion kenn doot fi tumuranke Kër Fashion chez Kumba madame Diaw moo leen di may seen émission Mbour TV Matinal mu ngi noonu comme ni ma koy waxee saa su nekk waa kër Binta Fashion chez Kumba nee naa la lépp lu ngeen bëgg ci lu baax lu ci mel ni cheveux naturel 100 pour cent longueur boo bëgg waaye couleur boo bëgg waaye la ma ci gën a neex mooy seeni sac à main lépp marque la dañuy jaay tissu xew ci tissu mariage ngénte ba ci accessoire lépp lu ngeen soxla rek bu ngeen doxantoo kër Binta Fashion chez Kumba comme Nicolas ko la siste Binta di waxee nga ne mooy lan. c'est la qualité qui fait la différence. mais qualité moo gën quantité. waaw nee na moom mooy Binta fépp. moom mooy Binta bi nga xamante ne dafa polyvalent nee naa la dafa dem États-Unis fekk fa lépp loo xam ne marque la rek mu indil ko Petite Côte bi ji bi ma bàyyi la nga daal di def lan météo du jour. waaw dañuy dem seetaan météo rek xoola climat bi tey naka lay naka la fas yéenee def. le temps sera marqué par un ciel largement ensoleillé sur une bonne partie du territoire sénégalais, mais surtout une forte tension de chaleur qui sera notée sur l'ensemble du territoire, notamment vers les localités de l'intérieur où des pics de 40 à 43 degrés seront notés. Nous verrons ça en détail avec l'immaculite d'abord, qui montre un temps ensoleillé, donc un ciel ensoleillé sur une bonne partie du pays. Quelques touffes nuageuses pourront être notées par moment sur les localités nord du territoire. Cependant, au fil des jours, c'est un voile de nuages qui sera progressivement noté sur l'ensemble du territoire sénégalais. Pour cette nuit, allant à la matinée de demain, donc toujours cette légère, toute légère sensation de fraîcheur qui va se maintenir sur les localités euh, nord et nord-ouest, sur euh, Dakar et Saint-Louis où des pics de 16 à 17 degrés seront notés et 20 degrés Celsius à Dakar. Cependant, en allant vers l'intérieur du pays avec ces vents de nord-est, c'est une hausse donc, des températures qui sera notée avec euh, des pics de 25 à 27 degrés qui seront notés sur l'axe Tambacounda et Kédougou. Donc vous euh, ressentirez donc une légère sensation de chaleur à l'intérieur du pays, notamment sur le Sénégal oriental où des températures de 25 à 27 degrés seront notées. Demain dans la journée, on voit que avec le régime de vent qui sera noté à l'intérieur du pays. Donc, c'est des vents de carrément d'est à nord-est qui seront notés sur une bonne partie des localités de l'intérieur. Donc, c'est l'armatan qui soufflera sur euh, les régions de l'intérieur. Par contre, euh, sur les côtes sénégalaises, c'est ce vent. Donc, on a des alizés maritimes qui adouciront le temps avec des températures de 27 degrés qui seront notées à Dakar et Mbour. Avec l'armatan, donc, c'est une température euh, qui sera carrément en hausse par rapport aux zones côtières, notamment sur Dakar et Mbour, Des pics de 40 degrés seront notés au nord, vers Podor 42 à Linguerre et pratiquement 43 degrés qui sera noté au niveau du Sénégal oriental. Donc une sanction de chaleur qui sera très intense à l'intérieur du pays, notamment sur le Sénégal oriental, où des températures de 43 degrés seront notées. Donc l'arme soufflera sur une bonne partie du territoire sénégalais, ce qui nous vaudra ce temps chaud et sec noté sur une bonne partie du territoire. nag eh, sama mbokku mool yi rek surtout dañ leen di faral di wax toujours comme ni ma koy waxee rek ñuy faral di déglu li nga xamante ne nii mooy météo parce que defe naa météo lu mu wax ci temps bi rek noonu lay demee chaque jour ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax eh, jibi tay moom plateau bi moom dañ laa war a bàyyi rek nga toog nii ñu lay waxal say xeeti teraanga di la waxal say yu baax di la waxal di di la la waxal di la waxal say say yu baax tey moom bul def émission ñaan naa la ko toogal rek waaw Binta dama lay bàyyi rek nga daal di ak sa waaw tey euh, Aïda dañuy daal di changer rubrique bi tuuti rek ñu dugg Casamance euh, comme euh, demoon naa congé waaye li nga xamante ne moo tax ma demoon Casamance mooy li nga xamante ne mooy lël suñu cosaan fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi cosaan yëpp dañ koy aada yi xam ah, nga yëpp dañ koy def waaye dafay am différence li nga xamante ne moom mooy aada ak cosaan tey ji ñun boo demee suñu côté Aïda dañ ko gën a dañ ko ko gën a fonk ndaxte li ngay gis ni euh, tey jii da ngay gis euh, woon xale bu am 14 ans ay 13 ans. voilà man foofu laa doon bëgg a dugg parce que dañ doon wax naan dañuy bàyyi ba xale yi am 13 ans 14 ans ñu leen di soog a yóbbu lal est que loolu moo ngi am ba léegi. waaw euh, Aïda comme ni ma la ko expliquer woon na sànq nee naa la da ngay gis xale bu am 2 ans ñu jël ko yóbbu ko ci àll ba. premier jour bi da nga koy yërëm ndax li nga koy yërëm ñu jël xale bu am deux ans xamul fu muy dem fajar boobu ay 5 heures du matin muy tàggatoo ak yaayam ki nga xamante ne moom mooy papam lu muy nekk ak papam du bëri waaye ñoom suñ demee ba ci responsabilité yooyu ba yóbbu xale yi benn mag du ñibbi si kër ga muy ay tonton muy ay papam foofu la ñuy nekk nekk ci wet xale bi waaye jox ko bi nga xamante ne moom lay moom lay àndaale lël ba sa doom bu ñëwee premier jour bi du nangu fanaan ak yoo pourtant premier jour ba muy dem premier jour bi ba muy dugg ba muy jong yaa daan jooy parce que da nga yërëm sa doom bëgg a nekk ak moom waaye moom bu demee ba def un mois ci àll bi day ñëw andi beneen jikko andi beneen comportement xale bu am deux ans yóbboo ci àll bi dañ leen di jox éducation parce que da ngay gis xale boo xamante ne tey ji deux ans la am commencé xam yooyu noonu xale bu am deux ans xam nga tey ji da ngay gis ñoo xamante ne noonu la waaye day dem ci àll bi rek changé carrément nga jox ko mu jedd waaye loolu boo demee bi ci àll bi da lépp ay changé kon dafa nekk loo xamante ne cosaan la mais dafa bokk ci li nga xamante ne éducation xale yi gëj nañ ko am ñoo xamante ne dañ na seen côté yi parce que dañ leen di yóbbu hôpital ñun suñu côté même suñu lañ yóbbee hôpital da ngay nekk ci àll bi un mois ferme doo gis sa yaay sa papa ngay gis ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa tonton. est-ce que est-ce que un mois ferme boobu ñuy nekk ci àll bi. Hmm. dinañ am toppatoo bi war ci ñoom. bu baax. bu buñ la la toppatoo bu baax parce que tey jii nee naa la suñ la suñ jëlee engagement boobu dañ koy assumer ñoom dañ fay nekk nekk ak seen wét bu lu ñu soxla rek ñu daw si ñëw kër ga xale bi lii la soxla ay mburu ay yooyu noonu am na lekk yoo xamante tamit dañ koy interdit parce que tey jii yow da ngay yóbbu sa doom. mais euh, julli li de bari nañ fa trois cent et personne personnes ñu ngi fa tey jii mënoo mënoo jënd sa doom kese ah nga yóbbul ko loo xamante ne ñeneen ñi duñ ko lekk kon lekk yooyu dañ koy mesurer tamit booy yóbbul foofu dara da ngay jëndal ñëpp su dee mënaloo jëndal ñëpp dangay jënd ñëpp li ñuy lekk waaye mënaloo jëndal sa bopp sa sa doom li nga xamante ne lu lu kii la li nga xamante ne ay moromam duñ ko lekk tey jii booy jënd crème da ngay jëndal ñëpp munoo ko jëndal ñëpp nga bàyyi wala nga jënd loo xamante ni ñëpp dinañ koy dañ dañ koy gis ci àll boobu soit nga bàyyi loolu moo fa nekk kon loolu dafay indi changement bi nga xamante ne moom mooy seen biir kenn du ëppale sa morom tey jii ayda bu solee sagar man sagar laa war a sol parce que bëgguñu kenn tane sa morom ñëpp dañuy toll ci même pied d'égalité loolu boo xoolee éducation la boo xamante ne ñun ñi war nañ koy jàngaat ci li nga xam ne mooy société parce que tey jii ngay gis ñi nga xamante ne dañuy nekk ci benn bërëb ku nekk di yëkkati sa mbagg ñoom li ñuy préféré mooy na ñëpp tolloo na ñëpp yam su ko defee rek solidarité dafay am seen diggante keneen ki bu amee euh, métit moromam da koy yëg waa ci lël yi li ma ci wax bariwul parce que li mu wax rek ci wàllum éducation parce que yaakaar naa xale bu doonee xale éducation dafa doon lu am solo ci moom avant muy doon mag waa bu ñu jëlee seen doom yóbbu leen ci lël bi de un metti na trop metti na ci côté yaay metti na ci xale yi parce que nga toog un mois gisoo sa yaay man mii góob ma ne fi ma toll nii sax man naa ko waxtuma la xale yi. ah boo seeyee noo def. ah dina garaaw de. est ce que du ma yii damay gàddu sama jëkkër ne ko ñëwal. da ngay mujjee toog mën dama ko naan ñëwal ñaanu ma yàlla sëy Tamba ñaanu yaa rek ma des mbuur waaw. kon noonu la kon nag euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy def loolu ñu leen di encouragé parce que lu Binta wax rek culture la waaye tamit aada la defe naa émission aada ak cosaan war nga fa dem comme ñoom dañuy bañ caméra la da ngay da ngay wax gars bu baax ñuy taxaw ba filmé waaw nga comme ça nga def fa benn émission bu am solo ci loolu noonu bu ko defee nit ñi mun koo xam ay da dañ moo continué waaye dañuy jox euh, Mati moom moo yor luy wàllu xarala yu bees yi tey ji euh, nga door émission bi lan nga ñuy indil tey ci wàllum xarala yu bees yi waa Djibi Diop Ndiaye loolu moom sawar naa ci parce que dafa doon loo xamante ne moo nekk ci temps nekk mot muy réseaux sociaux boo xoolee réseaux sociaux mooy li nga xamante ne mooy des personnes ay individus ci wàllum organisation ou famille ou bien lépp loo xamante ne yaa ngi ciy yëngu mun nga ci poster photo vidéo ou bien di ci def ay textes yu important nit ñi di ci jàngat tey nag demoon nañ xool li nga xamante ne mooy WhatsApp te WhatsApp moo gën a connu ci booy xool ins bi doon na troisième parce que Facebook mooy jiitu après Twitter WhatsApp di soog a ñëw kon WhatsApp doon na loo xamante ne mujjee naa génn mooy jël troisième mujj naa génn ah mais Facebook moom ba muy am dafa yàgg trop looloo tax Facebook dafa yàgg ñu demoon xooli ki li nga xamante ne mooy WhatsApp am na ku ma ci jël interview sama benn copine mu wax ci lu am importance léegi ma bàyyi suñu caméraman Zal mu tegal ñu régie boobu après ñu dellu si WhatsApp bi bari na ay avantages bon comme groupe yi ñuy créer avant tout mooy groupe euh, tey mën nañ laa dugal ci benn group comme group bu islam yi nii comme damay joxe exemple te dañ maa dugal ci benn groupe boo xamante ne ci tarixa tijaan bi lay wax tey daf lay xamal lu bari da lay xamal ci sa sëriñ yu bari xam nga day tax aussi da ngay xam lu bari ci sa tarixa da ngay xam lu bari ci sa diine loolu tamit ci avantage yi la bokkoo en même temps ak groupe bu famille yi ñuy créer comme day tax nga xam ci sa mbokk yu bari sama genre yi nga xamante ne xaw ma sama benn mbokk dañ may dugal ci samay groupe famille day tax may gën a xam samay mbokk gën a xam samay nit en même temps aussi dañ ciy def ay euh, comme tey suñu école dañoo créé benn groupe boo xamante ne groupe bu TL la foofu mën nañ cee jàng di ci def ay euh, ay exercice xam nga yu bari sax yooyu aussi avantage WhatsApp la non non boo ci concentré yooyu du la yàqal dara boo ci defee sa xel du la yàqal dara mais soo ci nekkee nekkaat ci leneen moom daf lay yàqal lu bari te da lay perturbé ci lu bari voilà. yaakaar naa gis ngeen lu am solo li mu wax mu ngi njëkkee ci li nga xamante ne mooy wàllum religion parce que groupe de whatsapp ñu ngi ciy def li nga xamante ne mooy groupe religion di ci waxtaanee seen diine parce que booy xool Djiby Diop Ndiaye gars yi ñu jot di jàngi ci araab yi ah non ay dina bokk loolu ñëpp a ciy bokk. parce que léegi booy xool amatuñu jot toog di jàng amatuñu ay ustaas léegi lépp ci groupe yi lañ koy sànni ku ci nekk di ci jàngat nga gën a xam sa diine lu importance la deuxième point bi mu souligné mooy wàllum jeunes seen jàng bi ñuy jàng parce que moom élève la de terminale dañ ciy def genre groupe di ci jàng di ci def ay leçon ku ci comprendre ñu expliquer la nga comprendre bu baax li nga xamante ne di ci jàngale baax bu baax troisième point bi mu wax nag mooy wàllum gisante bi parce que moom copain wam nee na foofu daw na yaram muy extérieur waa mais chaque jour day mel mu ngi ci wetam day da koy woo appel vidéo ñuy gisante di waxtaan te loolu macha allah lu neex la whatsapp daal doon na loo xamante ne macha allah lu ñuy kontaan la lu ñuy lu ñu bëgg la kontaan nañ ci bu baax a baax a baax. mais est-ce que xam nga ne whatsapp am na ay yu ci nekk. waaw am na ay danger mais tey dañu ñëwoon wax ci wàllum avantage njëriñ bi mu am. naa ne après dinañ ñëwaat d'accord kon kon kon kon waaw ah mais man. man comme ni mu ko waxee rek am na njariñ parce que man limay jaay ci la koy jaayé vente en ligne la koy def ci la ñun ñi di gisee statut bi apprécier def seeni commande me livrer la donc man WhatsApp moom jaajëf rek la leen di wax waaw WhatsApp tamit euh, ci ngay def say anniversaire gaay anniversaire nga leen di defal snap ak gars yi nga xamante ni dañoo bëgg siiwal ay affaire surtout Binta Binta day statut anniversaire ba nga xamante ni kenn dootul gis waaw loolu tamit da ciy baax waaw loolu aussi da ciy baax moom parce que yaakaar naa dafa doon li nga xamante ne lieu de rapprochement la ku nekk boo xëyee li nga war a mën a def rek mooy si Snap def statut ñëpp di ko gis mu doon loo xamante ne looy dund léegi ñu ñi ñu ngi koy xam dafa doon loo xamante ne c'est professionnel obligatoire léegi ku amul WhatsApp sax da am problème neexul ba neexul ku ci nekk boo amee téléphone yaa ngi lijjanti WhatsApp bëgg a waxtaan ak say xarit dangay ngay toog koo xamante ne toog nga ay année doo ko gis WhatsApp mooy dem doon ba ngeen bokk groupe amaat ay numéro relier waat ngeen gën a nekkaat kon mu doon lu am solo aussi li ay da wax aussi am na important jaay yi ñu ciy def léegi sonnatuñu kenn dematul ci ay boutique da ngay toog fi nga toog connecté wu gis mu rafet nga woo ko mu commandé la mu indi la ko livré xam nga loolu neex la macha allah. nga gis ñoo xamante ni tamit euh, ji bi ay famille lañ dañuy bokk te duñu ñu xamante mais grâce à whatsapp ju bëri xamante nañ ci euh, ci groupe yi da ngay gis ñoo xamante ne ay doom bàjjan la ñuy doon ay doom kii nekk France ki nekk Sénégal ñu xamante mais groupe bi moo moo leen di suudeewoo mooy tax famille gën a am relation bu sérieux bu normal kon whatsapp moom ci kaw ci kanam rek. jaajëf <laughs> jaajëf Mati jaajëf euh, rubrique

Je jigi tey nag euh, damay rek ci sama rubrique euh, ci ñi nga xamantene ni parents yi parce que suis xolé jamono ñu am gis ci 3000 xalé 3000 personnes yo xamantene ni kayit mu ñi mu aussi mu parce que amul kayit ne ci société bi nekkoo dara vite nga nii rek benn chaise vite nga buy dox buy dox nii parce que ñenn ñi ne amuñu 1500 yu ñu déposé këyit yi mais amoo 1500 boo déposé pied pour sa doom am këyitu jub mais am nga 500000 wala 400000 boo ngénte léegi imaginez 3000 personnes yu amul këyit kon xanaa petite côte bi mën nañ ne xaaj bi ñëpp amuñu këyit ah oui imaginer ngay jàng di jàng di jàng ba toll ci classe d' examen ñu ne la amoo këyit moo la teree def examen xale bi bu bu amul patience dëgg mën na bàyyi jàng bi parce que mën na ne man samay parents peut-être defuñu li war ci man gis nga doom du lekk ak naan rek nga ko war a yor da nga koy da koy gëstu yow ku jigéen ki bu fekkente ni amuloo temps pour uti këyit yi mais papa, peut-être benn une heure de temps bi muy sacrifié wu dem utali ko ko it wàññiw ko dara perdul perdoo dara ci sa journée mais ñu bàyyi sen domi, yi ñu nekk di jang ba heure bi amuñu këyit defe naa lolu rafetul té day ñuul parce que war nañ ci mëna gor gor lu bu baaxa baaxa ba ñu surveiller sen domi yi yaay yi aussi buñu gisé né sen papa yi déposé lu ñu leen këyit ñu dem ñoom ci seen bopp ñu génnee ci seen poche dem déposer leen ay këyit parce que doom bu baaxee dañ naan doomu de doomu diw ba jamais ñu ne euh, papa ji mais bu bonee dañ naan yaay ji lañ koy féetale mais bu baaxee ñëpp lañ koy séddale ku jug danaan sama doom bi sama taaw bi sama caat bi ngay dégg mais su bonee rek dañ naan ah doomu bintaa bi la de ku ci ne da ngay dindi say responsabilité dootoon nangoo doon doomam dootul nangu mu nekk sa doom donc ñu gën a góorgóorlu gën a veillé bu baax a baax ci li nga xamante ne nii mooy euh, xale yi ak mag ñi aussi te xam ne ku am 500000 cent 300000. boobu ñu ay na aussi loolu dama yaakaar ne hôpital yi aussi dañ ci am parce que boo bu ñu juree doom mu doon xale nga constaté ko ba mu wasin mën nga war a mën a jël kayit boo xam ne bindoon nga ko mu dem directement mairie déposé ko lu am importance a booy génn hôpital dañ lay xam na léegi xam nga lan moo gën a facile sax. jour boo juddoo mën nga am sa carte nan lañ koy waxee kayitu juddu waaw. te loolu parents yi góor yi ñoom ñoo ko góor yi ñoo war a jël seen responsabilité yi ba mu mat parce que ki nga xamante ne moom moo accusé kooku talu dara ay dax gis nga ñenn ñi koy tax mu ca xew ma déedéet non non non man parents yi ñoom lay blâmer ndaxte ñoom ñooy jënd ordonnance yi man boo jëndee sa ordonnance pare war ngaa mën a daw dem mairie defaral sa ki nga xamante xam nga ki nga koy tuddee déjà non bu dee xamoo ki nga koy tuddee tamit mën ba jour tudd bi après. Mhm. Uh-huh. des fois ça arrive parce que Europe. Mhm. ñoom doo génn hôpital bi te joxe woo tur bi. si te dafa luñ la kayit foofu lañ ci tur Europe ñoom noonu la ñuy def. Uh-huh. donc boo accouché rek. Mhm. ci biir salle balaa ngaa génn bay dem. dañ lay wax ne la kan nga tuddee doom bi ñu bind ko bind turu yaayam bind turu papaam loolay nekk kayit bi. waaw ah, loolu démb am na ku ma ci doon wax. parce que moom dafa am benn ma ne doom ne ko waaw yow xanaa yow sa jëkkër ay parents ngeen sant laa ko jox mu ne ko loolu nan lay mënuma ñu Europe mënuma booy am doom sa jëkkër bu dee assisté wu trois jours yi bu dee ñëwul mënuma sa sant lañ koy jox te bu ñu ko joxee ba pare tant que sa jëkkër ji ñëwul sa doom ñëwul taxawul ak man mënuma ñett pa di xam ku góor ak ku jigéen ak seen doom mooy teew seen témoin bu ñëwul maanaam sa centre moom lañ lay jox ba nga dem ba mag su dee da nga ko bëgg a nga sant waaye Europe bu dee trois jours yi passé na gis ñu ko góor gi sant yaayam lañ koy jox continué. ci loolu la ma expliqué démb rek loolu la ma expliqué loolu am na solo waaw parce que def bu defee xale góor yi dinañ ñëw di di assister di xam jigéen ñi li ñuy daj waaw loolu lañ accouchement bi uh-huh. di ak euh, di di di assister li nga xam ne mooy accouchement bi xam li nga xam ne jigéen ñi moom la ñuy daj ba buñ ñibbisee ci kër gi dinañ leen jox seen bi jox leen li ñu moom <laughs> waaw euh, comme nag ni ñu ko waxee rek euh, damay wax parents yi rek ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax euh, balaa seen jabar yi di génn ci ci hôpital bi ñu lijjanti kayit yi ba mu leer ba lépp tegu ñu soog leen a yóbbu ci kër gi parce que xale tamit bu jàngee ba tollu fenn fii nga ne amul kayit moo ko teree def examen aneem dafay nul parce que imaginer mille personnes balaa ñu lijjanti seeni dossier ñoom ñëpp. jour examen yi dina jot normalement donc te kay nekk na loo xam dafa jafé am jamono ji ñu toll euh di leen wax nak ñu gëna gor gor lu bu baaxa baax rek te gëna xol li nga xamante ni moy xale yi tay nak dañuy daldi wax régie rek téléspectateurs yi ñu daldi ñuy jox photo bi waaw kay photo bi rek

Eh, la du la du la décroché dama ko naan téléphone bi sonné Aïda doo wuyu ne ko du ma ko wuyu parce que fa laa jël <laughs> mais na def ndànk rek maa ngi ñëw. damay dem ba mujj gi damay mer. mer mais loolu lépp defe naa bëgg nga liggéey. man des fois ma defanteeg moom sax ma mayanteeg moom. <laughs>

tout le bonheur du monde la totale yow loo doon rek doyoo la sant rek jib jëm ndax nga takk jabar la. anniversaire bi moom nga takk jabar dañoo rek. ji bi génnee bàgg bi teg ko nii. mu daal di woo madame mu. waaw lii moo waroon a nekk surprise anniversaire bi. Ah. jibi dafa nekk euh, ku baax des fois mu mer nag waaye man li nekk ci moom euh, loolu dama ko bëgg ci doomu aadama koo xamante ne bu meree rek foofu da koy bu paree rek pare na ci ba pare ji bi ji ku ko mere ku ko mere rek dafay dafay jaaxle da lay topp naan la diw lii diw loolu dafa neex ngay liggéey ak nit koo xamante ne xam na àdduna xam ne li muy comporté ak nit ñi des fois mu tànn waaye bu xoli bu xoli jógee rek dafay si sur le sang mën na rectifier boppam mën na rectifier lu mu def kon ci bi ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di la yow moom rek dayo ni nga mel rek continuer loolu ndax yor ay nit yor ay nit métti na torop waaw balaa marché waa nga am waa yor suñu zaar yi métti na torop ndax man moom lu ma su ma wooy rek bintaa rek mu yuuxu ma ma yuuxu ko ne ma bintaa yow peut-être li may wax déggoo ko ma ne ko si dégg naa ko waaye booy wax ak moom da ngay wàccee sa baat pourtant man maa war a wàccee sama baat mais dama koy naan booy wax ak moom da ngay wàccee sa baat loolu dafa nekk koo xamante ne ah dafa dafa daf moom lu muy lu muy métier bi muy def da koo bëgg bëgg na liggéey ji bi bëgg na liggéey moo tax accélération yi tuddee ko monsieur Plateau. waaw noonu la monsieur Plateau. monsieur Plateau waaw Plateau parce que lu muy def da koo bëgg. noonu la dañ lay ñaanal rek jibi yow li nga mel rek na nga continuer ñun doyal ñu si yow billaay dañ la bëgg parce que yow yaa ñu bëgg lépp looy def rek nga wax wax ñu ko def sama soose bi dégg na olof léegi de non jibi jibi jibi ay xeet baax baax. ndeysaan liggéey. moo ko moo ko mérité wax dëgg yàlla. waaw ay jël systématique loolu tuutaloo ñu waaye duñ ñun tam a tuutal. waaw lu lu neex du doy te lu ëpp tuuru dañ koy dagg rek dama ko bëgg jooyloo ay dafa mu jooy xoolal. man sax commencé naa jooy wax dëgg yàlla parce que boo xool ni Binta di waxee xol la koy waxee moom macha allah bëgg nga jibi ñoom Ndiaye trop man aussi li may wax mooy happy birthday TV ñu ngi lay souhaiter happy birthday longue vie à toi jàmm ju bari réussite totale ba ma la xamee yàggul mais man lu positif rek laa gis ci yow baax nga bëgg nga boole nga ñëpp aussi yaa ngi xoolandee ñëpp même xoolin ki mais yaakaar naa xanaa ay daal bi ñu dañ la jëncal kenn moo tax ñu bëgg laa may jabar <laughs> bonus day am bonus day am jibi mooy sama mooy suñu directeur bu ñuy liggéey waaye bu liggéey bu jeexee ji jibi dépense bu jotee rek mu ne leen dem leen si Njaay dem leen si Njaay mooy seen directeur bu dépense jotee rek mu daw ne duñu suñ duñu du ma mooy suñu directeur waaye liggéey bu jotee bintaam pourtant man maay suñu directeur ñoom bintaal lu taal booy def émission doo ma ko wax sa émission bi tey doo ko def doo ko fi defee joxuma la benn autorisation ma ne ko waaye du Ndiaye laa ko wax Ndiaye du sa directeur waaye bu dépense jotee rek ma dem si moom ji bi damay dem fii reportage jox ma paas dama si Ndiaye jaata <laughs> moom mooy seen directeur loolu dafa neex. loolu dafa neex war na yàlla loolu dafa neex. ñoom muy xëy di yeewoon doon di bokk ak ñoom métier ba ñoo ko wax dañuy bàyyi Abdou rek Abdou nekk caméraman ci biir Mbour TV dañ koy bàyyi rek moom tam mu di wax lu baax ci Djiby c'est la première fois nag mu wax ci caméra. waa xam nga caméraman du wax ci caméra. Mm-hmm. waaw ñun dañoo sàkk pour ñu nekk ci ginnaaw caméra mais bu demee ba taxaw ci kanam di wax rek am na lu tax. Mm-hmm. ngaañ bu kuul la. ngaañ bu kuul rek na man. man yow sax xam waaw da ngay waaw man damay déraper. Mhm. waaw mais gaañ bu cool la gaañ bu bëgg li muy def gëm li muy def. Mhm. te incha allah day avancé ndaxte nit ki loo gëm rek. waaw mu. suñu ma ngoog ma ngoog te ñun ñëpp waxuma waxu li may wax waxaluma ko sam bopp donc. Mhm. Mm, caméraman Zal muy Ameth ñëpp laay waxal maanaam. gaan gaan bu nice la. Mhm. sama boy la boy bu nice la léeg-léeg même mu xaw a kii mais. waaw léeg-léeg day jàddu koñ mais da leen ko wax tamit aussi mu bàyyi doxaan. ñu waxi takk lii ba noonu Djibi Diop Ndiaye nekk journaliste ci biir Ndour TV. waaye di ànd ak moom ci suñu plateau matinal chaque jour nag jibi nekk nit koo xamante ne bañ koo xamee ba léegi changé wul benn kanam la ñu xam ci moom benn jikko la ñu xam ci moom li gën a jafe ci doomu aadama moom la am muy fi mu meree fi lay bàyyee lépp mu jeex bu la waxee lim lay wax rek pare na ci du denc mer loolu bokk na loo xamante ne nii gën na ma neex ci moom ñu di la wax nag jibi bi yow bu ñu toogee fii tey di wax ci yow duñu fi jógee bu ñu toogee fii di wax sax mbaax day mel ni ñu dem ci géej gi rek di tànk du jeex fi lañuy ñuy fanaan dañuy sonn rek daal di bàyyi di leen wax nag ne eh, tey nag anniversaire bi ala daw mi na kontaan nañ petit déjeuner baa ngi monsieur yaa ngi ci biir fii day daal di wàcc rek ba zéro di leen jox rendez-vous euh, ba suba incha allah ñu daal di dugg nag xol paate li nga xamante ne ni mooy bonus 10 jours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 O amor te